Ndour daat nay wax ne kenn ku nekk yàlla daf lay tracé la li nga xam ne mooy sab destin wax na ci album bu yees bi nga xam ne jamono ji mooy toj adduna bi di seeto seeta moom Aby wax na ñi nga xam ne ñoom la àndal album boobee daat nay wax ne la jublu nag ca album boobee di seeto seeta nee na couple yi da leen a bëgg a wax ne leen kenn ku nekk am na rôle boo xam ne moom nga war a joué wax na relation bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak Thione Seck wàllum politique la yéen kaay gi di xëy di ñu xibaar nan ñi nga xam ne nekk ci bët gànnaaru réewum Sénégal jamono ji duñu waxati dara ndax lu toll ci téeméer ak juróom ci milliards yoo xam ne Banque africaine de développement dina ko génne ngir nag financer leen ko ci lu jëm ci wàllum yoon maanaam ay route yoo xam ne bi ñu ko xayma toll na ci 483 kilomètres yéen kaay xëy ci manifestation bi nga xam ne waa Y'en a ak waa FRAPP niki démb ñoo jàpp na yoon dafa jéng ba tey ci journal bi ñoom nee nañu yoon Macky Sall la fi nekkal ak ñi nga xam ne ñooy jege ñaale njiitu réew mi yéen kaay gii de laas nee na ñii nga xam ne ñoo doon amal ni ki démb ay manifestation daat nañuy xotti xareta li nga xam ne mooy charte non violence ndax nee nañu violence bi ci réew mi Macky Sall moo ko indi ci réew mi kaay gii de Les Échos xëy xibaar naan ñu ni ki démb manifestation bi nga xam ne Y'en a marre ak FRAPP ñoo ko organisé woon en yi nga xamante ni moom lañ fa yëkkati yoo xam ne dëgër na këcc li nga xam ne moo jaaxal gaay yu bare bare leader yi nga xam ne ñoo bokk ci kujje gi niki démb ñëwuñu woona Guy Marius Sagna xëy nag di ñu xibaara naan ñu bëri na ay juges yoo xam ne maanaam ñoo nangoo ba a jël seen indépendance ngir nag ay terrain ak ay enveloppe yéen a kaay gi di enquête nee na fronde sociale bi jamono jii ma ngi yéeg bu baax a baax ndax niki démb manifestation bi nga xam ne amoon na ci Ndakaaru àndukaa dund gu cher gi waxtaan nañ ko faak njàng meeg njàngale mi nga xam ne jamono ji nag dafa bëri ay jafe-jafe ak lu soxal wàllum wér yaram ke ak injustice bi nga xam ne bëri na ñoo xam ne ñoo ngi koy ñaawlu yéen a kaay gi ñu syndicat du G20 ñoom nag nee nañu dañuy déposer ab préavis de grève ndax dañoo bëgg solidarité ak SAEMS ak CUSEMS yéen i kaay gi du observateur nee na trafic passeport diplomatique yi am na ñaari gendarme yu nekk palais ak ñaari gendarme yu nekk ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères teg nañu leen loxo yéen i kaay gi nee na am na juróom-benn yu bokk ci réseau trafic passeport diplomatique yi ñoo xam ne ni ki démb ñoo nga woon tribunal fas yéene janoo ak procureur waaye nag dañoo am retour de parquet yéen i xëy na ci misère ak jafe yi nga xam ne moo nekk ci nee na sapeur pompier yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal tumuranke nañ loola wan nañu leen ginnaaw amuñu ay moyen ci ay jafe-jafe neen la ñu nekk yéen kaay gii di record xëy ci Ligue 1 bu Sénégal ñeenteelu bëccëg bi journal bi nee na choc bu rëy tey jii am na diggante Jaraaf ak AS Pikine waaye diggante Génération Foot ak Casa Sport yéen kaay gii di sunu lamb nee na Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 dimanche bii nga xam ne moom la ñu dëgmal la Boy Niang 16h45 la ñu ko convoqué Tapha Tine gi nee na Tapha Tine moom dafay bëgg a li nga xam ne mooy revanche